waaw salam wa banlieue Banlieu, Pikine ak liko wër ginnaaw ray japp fep. Gaay ah yeen xam ngeen nous sommes des purs banlieusards deretu Pikine mooy daw dans sunu yaram ñu gëm ko te muy dëgg ci ñun lan xew journée de sensibilisation pour ophtalmologie Manam, ñi nga pas ni am fièvre bët bés bobu dañ leen koy jagleel pour pour ko xamanteni am nga ci mbala nga am feebaru bët nga ñëw ñu faj la te doo fay dara kañ lay doon dimanche le vingt 27 octobre ca Pikine man ña fay njëkk ca lay bokk su ma ñëwee nag ñu consulter ma ba pare bëgge je vous donne rendez avec nag lépp Pikine te lépp Pikine lay doon bu jeexee rek jeex